man Seny Dieng maay délégué marché Ocass di président délégué marché yi nekk ci dëkk bi yëpp as gor su nekk nag mbas mu mel nii bu ñëwee cim réew war nga ci amuk jaaxle war nga ci amuk tiitaange waaye nag tiitaange gi ak gëm yàlla nag lañ ko àndal waaw daa tolloog nag da maanaam euh, faju du tee gëm yàlla ndax mbirit mu ñëw mel mu nekk na nga koy moytoo ndax suñu borom moo njëkk a wax ne na moytu bañ nañ ko ba am na jàngkat yi sax nee nañu weer wi sax dañ cee bind lan fattilan jaddilan ngir làmmiñ ak cat ak nangam nangam kon su mbas mu mel nii amee ñëw ci dëkk bi wax dëgg yàlla danañ ci amuk jaaxle ak tiitaange waaye nag nun biñ ko defee tamit tey moytu noo ngi dégg li nga xam ne moom la nu docteur yi di wax euh, ñi nga xam ne ñoom la yàlla may ñu jàng xam-xam boobu ba ne nangam ak nangam moo ko fi indi nun xamuñu ko ndax mënu noo gis micro xamuñu lu kii sunu jaaxle itam ci docteur yi la nu jëm kon lim li ñu wax dañ koo gëm nit ñu ko boo ñëwee gis ci bureau bi xam nga ne maa ngi nii takk masque ñi nga fekk ci bureau bi ñëpp takk nañ masque booy ñëw ndox maa nga ne yi ñu war a raxasoo anti gel baa nga noonu kon ñun li ñu war a def lépp li ñu digal ne nañ ko def def nañ ko beneen bi ci des soo demee ci jàkka jee yóbbu nañ fa ay barigo yoo xamante ni fa la ñu war a raxasoo gel nag ak kéeg yooyu ak masque ak yooyu nag kenn ku nekk yaa ko war a mën a jëndal sa bopp ndax moom jërul ñu di ko aj ci gouvernement wala ci délégué marché masque kenn ku ne yaa ko war ni ngay jëndee gerte caaf ni ngay jëndee beñe ni ngay jëndee leen noonu nga war a jëndee masque même bu ñu nee masque masque yi jetable à euh, la du tee war ngaa mën a jënd masque yoo xamante ne ñaar mbaa ñett yoo xam ne da nga koy fóot di ko di ko kii ñun loolu lañ dund loolu la ñu gëm marché Ocass ku ko mësaan a wax xam ko ci xumb ak ambiance bu neex a neex a neex ñu gis na jamono ci wàññi nañ heure yi bu baax a baax a baax naka ngay def ak euh, jaaykat yi nga xam ne ñu ngi ci biir ba ñuy respecté mbir waaw xam nga ñi nga xamante ni ab taalibe moom li ko li mu li ñu koy nawe mooy dégg ndigal nun ba nu gisee mun tax tàllal loxaam yi tedd yooyu di di raxasu lañ daal di xam ne ba yëkkatiwaat deux mille deux millions euh, deux cent millions def ko ci wëlbatikuwaat joxe dund bu bare jox ko waa is bu Hizbut Tarqiyyah ñu di ko séddale la ñu xam ne nun tamit am na lu nu war te na gannaaw suñu guide religieux moo def loolu dañ koo war a roy topp ci dund donte déggunu lu docteur yi sax kon dana war a topp ci gannaaw Sëñ Muntaxa ba tax na euh, li nu war lépp daal nun noo koy def wut nañ ay ndimbal yóbbu ci ministère ba ba muy doog a xew xamaguñ ne woon dana ñëw Touba wut nañ ay ndimbal yóbbu sous préfecture boobu it ne woon yëf yi nii lay mel teewul nag euh, ñi ngi dimbalante noonu tam ci sunu biir tëjub marché bi tamit dañ ci sant yàlla bu baax a baax ndax suñ neexoon gouvernement bi mu wax ak sëñ bi ñu tëj ko euh, euh, complètement te booba duñ ci man dara waaye nag comme actuellement fii may waxee yow dañu ne 6 heures ba 3 heures nay ubbi 6 heures ba 3 heures noon noo nga déglu loola 6 heures ba 3 heures gisagul nag leneen lu ko soppi waaye 6 heures ba 3 heures ji daal noo ci nit ñi nag na ma yàlla jégal dañoo xaw a ragal kumpa ba nga xamante ni lu ne cocc rek danañ ko décortiquer sàllaaw boo rëddoon rëdd wii ne ku fi jaar dee da nga gis ko ko ab tànkam di jéem a euh, kawin euh, mbir nag euh, kilifa nag ñaare balaa mën a wax dara day dem ba xam ca lu leer nga xam ne boo ko waxee nit ñi mën a gëm li ngay wax ñu mën caa teg seen bët ndax am na fi jamono ba ma ba ñu ne dañuy tëj marché yi ma waxtaan ak préfet ma ne ko marché suñ ko tëjee dana metti ndax ma ki mu ne ma kon yeneen marché yi ci des euh, luuma ma ne ko marché yëpp ak marché occas ñoo yem marché luuma amul Touba marché fixe moo fi mu ne ma kon léegi dañuy changer heure bi ma ne ko nu ñuy def mu ne ma léegi ay ay midi une heure yooyu ñu tëj ma ne ko lal ak lal yi dafa metti damaa bëggoon nga dimbali nu may ba cinq heures mu ne ah, loolu loolu moom loolu loolu moom dana doy waar. mënut a nekk daal ne ma waa baax na danga la tontu nes tuuti mu woo ma téléphone ne ma léegi may nañ leen ba 3 heures ma ne ko 3 heures ji de dana gàtt te nga noo dimbali may nu ba 4 heures mu ne fekk si naa leen ci 4 heures bi yàlla dogalee kaa yi am ci biir marché bi amaat fi amaat fi gouverneur ñëwal boppam daal ne lañ leen mayoon nangu nañ ko 4 heures ji moom mayetuñ leen ko léegi 3 heures lañ leen may ah ñu ñu d'accord ci ànd ci ak ñoom ndax xam nañ ne suñ kaaraangeer la ñu bëgg ba may wax 4 heures yooyu am na ñoo xam ne ñu ngi naan ana arrêté ba ana arrêté ba nangam ak nit nag boo ko doyloo muy dem ak ñëw lam fa jële mu dikk di la ko nettali ngor mooy nga mën a gëm lam lay wax waaye day am ñoo xam ni dañ naan ah, est-ce que loolu ab arrêté la est lii nangam ak nangam arrêté ba ba mu ñëwee tey far arrêté ba la ca nekk ñoom ñu def ci seen 3 heures 3 heures moo nekkoon ci arrêté bi mais maa ñaan ñu ñu def euh, euh, ñu ñu ñu yombalal ma ba 4 heures rek nga xam ne loolu dañ ma ko wisoon dañ ma cee dimbali woon léegi nag bi arrêté bi ñëwee préfet euh, gouverneur ne arrêté bi euh, comme 3 heures la lañ ci dimoon trois heures ji ñëw dootuñu ko may lu ci topp léegi nag mu ngi noonu waaye suñu bàyyi woon coow léegi karab-karab ñu bañ cee bindante bi arrêté ñu waxtaan ba juboo rek kon lu ñu bëgg danañ ko mën a waaye ñoom ñoo ne écrit bind lañ wax bind nañ nag léegi trois heures jàngoog léegi nag leneen li ci des dëkk bi moom Mbàkke la sant sëñ Mountakha mooy boroom dëkk bi lu mu wax rek noonu ànd nañ ci ak moom amuñu luñ ci arrière xamuñu nag luñ ñuy doyee ci bu ngoonee xamuñu luñ ñuy doyee ca réunion ba waaye de toutes façon daal noonu lu sëñ Mountakha ànd rek ànd nañ ci ak moom. man ak ñi ma déggal ndax 100 pour cent amul fenn waaye man seeni jàng délégué marché ak ñi nga xam ne déggal nañ ma bu sëñ Mountakha ne woon nañ tëj marché bi danañ tëj su Mountakha ne sëñ sëñ Mountakha ne woon bu leen tëj marché bi ndax nangam ak nangam duñ ko def lam lam na sant rek lañuy def waaw. fi mu jamono ji fi mu toll nii ñëpp ngi daal di dajale ay aide di ko dimbalante ndax waa marché bi def nañ ay kuréel yoo xamante ne ni dañuy dajale ngi dimbali ñuy jaay ci biir. moom laa la doon wax léegi moom laa la njëkk a wax xam naa dama dama dama yàkkamti ba wax la ko avant nga may poser question bi dama ne la bi ñu defee ay ndimbal yóbbu ko ci ministère ba jàpp ñu ne woon Touba dana am cas bi ñu defee ay ndimbal yóbbu ko su préfecture ba booba amaguñ woon cas bi yàlla dogalee tamit euh, cas yi am. bañ nu waxee lañ nu wax ba noppi téewul ñun ñoo ngi dajalaatu ci suñu biir di dimbalante ci sunu biir loolu am na kuréel goo xamante ni Aziz ñu di ko wax Aziz te Fallou Galas Khouma jiite ko ñoom ña ngay dem mbootaay googu ñoom ña nga ca man mii bokk naa ca ndax sama sama tur da cay dem keneen tur as keneen di ca dem dañ ko dajalee seet ñi nga xam ne xëy na néew nañ ca doole boobu kuréel nag dama lay bàyyi boo demee ca Galas ma dana la ca leeral ndax man nag dama caa participer joxe sama wàll waaye du man maa koy séddale du man maay wax nañuy def comme ñoom seen initiative la seen xel mu rafet la bañ ma ko waxee daal dinaa ci bokk bokk naa ca danaa ca joxe joxe naa ca lañ cay def nag ñoom ñoo koy jëlal seen bopp ñooy wax ne nuñ koy defee man ah nuñ ca def rek ànd ak ñoom teewul nag bureau la bureau bi fii ku am yaakaar kenn ku ne da nga fi ñëw soo ñëwee tamit li bureau bi man te attan ko ba ñu ko caa def waaye man ci sama jëmmi bopp li may def sama wërsëgu bopp laa koy joxe waaye jëluma xaalisu marché mbaa feneen di ko jox kenn ndax uh, sañu ma ko di ñaan yàlla nag li nga xam ne mooy jàngoro ji nekk ci ci ci dëkk bi ak ci réew mi ak àdduna sépp suñ borom dindi ko fi moom moo ko fi indi mën na koo dindi ba mu set wecc ndax jàngoro ji ab jaamu yàlla dong la buñ ko ne luñ ko luñ ko reylawul du ko rey luñ ko kuñ ko dallawul ci kawam du ko du ko dal kon nag noo ngi ñaan yàlla ci barkeb Seexul Xadim mii sunu wasila nu ñaan rek jàngoro ji jóge fi abadan teyit di gën a dénkaat sama mbokki commerçant yi ak ñëpp ñu may déglu li docteur yi di wax nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel nit kenn ku ne nag am nga sa xelum bopp waaye li docteur yi wax nañ ci bàyyi xel ndax ku feebar kenn ku ne di nga dem docteur te boo demee su ne laa summeekul nga summiku su ne laa yëkkati say tàng nga yëkkati su ne laa yëkkati say loxo nga yëkkati te doo ko laaj lu tax moom mooy seet fa ko neex mu nabb na ba sa yaram nu ko neex kon nag saa bu dikkee ne la nangam ak nangam am na fii wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñu dé ñu leen déglu man de déglu naa leen